un festival qui a aujourd'hui permis vraiment de sortir de, du trou parce que Coupentouf était oublié. Mais sur le plan culturel, avec ses richesses culturelles qui a été manifestée euh, lors des trois éditions passées, je pense aujourd'hui a été confirmé Et nous pensons que ça va dans le sens de vendre la destination de Kumpentum. C'est pour cela qu'on dit qu'on est très fiers de participer et on dit plein succès aux festivaliers et à l'ensemble de la population sénégalaise qui a eu à participer ou bien de suivre à distance ce festival. festival bi bi ki quatrième édition président Oumar Sy vraiment affaire bi commencement bi métti woon na ndaxte am na ñoo xamoon ne dañoo affaire bi du dem tey gis nañ fi responsable politique yoo xam ne mosuñ leen a gis waaw ñun lu ñuy ñaan yàlla ñun département les bu doon suñu sago ñun responsable nu res nu ki yëpp région yëpp nekkee ak nu département yëpp nekkee Koupantoum jëm kanam dégg nga ndax fii ñaani ku nekk xam na ne ñaani waaw ñaani moom dañoo bañ rek waaw ba tey bañ boobu moo nekk fii waaw loolu la ñuy ñaan yàlla waaw festival bi nag moom metti woon na trop trop ñun ci cousin bi lañ bokk ci commission bi lañ bokk waat commission culture boobu ba léegi ñu ne moom quatrième édition bi waaye lu ñuy ñaan yàlla bii moom vraiment moom ci kaw ci kanam ndaxte xale moom bu juddoo il faut mu toog daaw dañoo judd woon jàng toog ñu jógati foofu raam instant yi mu ngi mel ni dégg nga de mun nañ dox léegi ñu ngi nekk waxambaane wala ñu nekk jànq bu mot bu ñu neexee tey ñu ne waxambaane lañ wala jànq bu mot lañ kon nag tey ji vraiment kontaan nañ lii ndamu Umar Sy la ndamu ñun Mbamour comme conseil département ñun ñëpp nag.